Macky a parlé avec Sonko Macky a parlé avec euh, avec avec euh, Karim etc etc mais Sonko dans tout ça donc Sonko n'est pas candidat bien sûr pourquoi le nom de Sonko mhm. continue à polluer la, euh, la sphère euh, politique et c'est et c'est et c'est ce qui est dommage en fait parce que euh, xam nga sànq peut-être c'est ma première intervention euh, lii doyen di wax daf ku mu jaaxalul rek ci ay probabilité ak ay calcul yoo xam ni ñu ngi taxaw nekkaat dans l'incertitude man naan ban Sénégal la ñu nekk xam nga le professeur Seydi Mouhamadou Moustapha Sy dafa mës wax ci euh, benn discours am mu ni la politique n'a ni âme ni morale mu ni ni conscience raison pour laquelle il faudrait doter de nos institutions d'hommes forts et d'hommes qui sont capables d'être donc des hommes républicains et pas de mercenaires politiques gis nga situation bi ñu nekk tey ba di ko waxtaanee nii lenn rek moo ko indi c'est la volonté d'une seule personne à rester éternellement au pouvoir. Simple comme bonjour. Comme simple comme bonjour. C'est-à-dire que il faudra il faudrait pas que ñuy dugg dans les considérations secondaires comme ni ñu wax sànq. li xew ci réew mi tey jii nii ba ñun ñu toog di ko waxtaanee te bëggut a dem te benn nit moom moo am responsabilité boobu noonu et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui au Sénégal te pour man foofu la ñu war a duutaat baaraam bi balaa ñuy mën a wax sax waxu dialogue te moom mooy Sénégal ñaata crise lañ fi dund post électoral musuñoo xalaat wax waxu reporter élection la crise de 1993 c'était plus chaud le président du conseil constitutionnel qui démissionne et pourtant le processus le électoral assassiné. Le, assassiné le processus électoral a continué mm-hmm. en 2011 c'était beaucoup plus chaud chaque jour dañ doon manifester mort mm-hmm. et pourtant le processus électoral avait continué mais tey la ñuy tey le 26 février sénégalais yi waroon a voté ji démb tey xëy tey voté ji wuñu ndax lan benn nit boo xam ne moom moo tëju de façon unilatérale jël ay décision sans waxtaan ci ak kenn mais au-delà mu jël décision sans waxtaan ci ak kenn jël décret verbal boo xam ni tey moom moo arrêté le processus électoral donc c'est-à-dire que tey mënuñu xëy rek wax ci li xew tey jii te waxuñu li nga xam ne moom la ñu. moom moo nekk si ginnaaw. xam nga xam nga li li ñu indi fii nii tey mooy ku yaakaarul woon ni dina dina dina dina am tamit. boo dégloo le cas du du ñun ah. du ñun du ñun ñeneen ñoo ko sàkku. xam nga xam nga xam xam nga foofu noonu ma def ci benn leeral mooy gis nga dans la république il y a respect de la hiérarchie des normes bu ngeen seetloo président Macky Sall même décret bi avant mu koy génne dafa bàyyi ba loi assemblée bi génn ba pare ñu soog ko publier parce que loi moom moo nekk ci kaw décret. décret boobu noonu mënul woon am benn base tant que loi wu assemblée nationale bi demandé woon. moo tax bi assemblée waree voté di laaj ana décret. ana décret bi nga xam ne mm, mm, c' ça en fait donc te loolu noonu moom mooy. ci lépp lépp dafa jalgati yoon en caractéristique état de droit moom moo taxoon yooyu noonu ñoom ñu koy bàyyi xel mais man damay am souvent habitude di wax nii xam nga quand on veut tuer son son son chien on l'accuse d'avoir d'avoir la rage. mais euh, sunu sunu démocratie bi ñu ko bëggee rey dañu gëmloo ci cadre loi ak ci cadre règlement yoo xam ni tënkuwul te méngoowul ak ni état de droit war doxe parce que Macky Sall conseil constitutionnel man dama jàpp ni nit ki olof ñu dafa am lu ñu lu ñu xamee ñun Sénégal mooy gor du du du fot ci ndab ñaari yoon da nga njëkk fot jël décret conseil constitutionnel ne la ah yow mi nga xam ne yaa war a garantir loi ak règlement li nga def de du yoon conseil constitutionnel sunu constitution li mu wax président de la république mooy yow tu le garant de la constitution et le garant du respect des institutions donc ça veut que Macky Sall moom moo war di saytu ndaxam est-ce que loi ak règlement ak décision yu ñuy jël ci réew mi ñu ngi koy appliquer normalement mais boo demee ba yow mi nga xam ne yaay kilifa kër gi nga dem ba sa ay njaboot di la rappeler à l'ordre mais loolu mooy absence et vacance de pouvoir en dañu dañu dañu dem élection en 2012 Serigne Moustapha Sy wax ni euh, nous avons installé on nous avons fait des élections nous avons un gouvernement mais le pouvoir est vacant gis nga vacance pouvoir boobu noonu à mon avis moo gën a dangereux sax absence de pouvoir parce que dañuy nekk ci benn état boo xam ne kenn xamatul kan mooy décidé moom moo indi pëccëxoo bi loolu moo tax sànq ma la doon laaj ni la est-ce que tey li ñu li xew ci réew mi tey jii ni pagaille la wala effondrement de l'état de droit te man su ma koy caractériser damay wax ni nekkatuñ sax ci république parce que yi ñu jot dund ci réew mi ba ñu egg ci situation bu inédite ba ñu nekk ci impasse ba tey même les spécialistes donc de la constitution di wax ni ñoom ils sont perdus dans cette situation là ça c'est extrêmement grave il faut qu'on s'interroge oui. sur les faits qui nous ont amenés dans cette situation inédite te fait yooyu noonu benn responsable la am ce n'est ni l'opposition ce n'est euh, la, la la population c'est la volonté d'une seule personne ki a décidé de changer de façon unilatérale la destinée ah. donc de notre pays. nga may ma nga nga may ma tailleur constitutionnel. nga nga may nga may ma jeexal foofu noonu. ci benn ci ma daaneel foofu noonu. xam nga euh, bu ñuy wax waxu dialogue xam nga ñun ay ay ay légaliste lañu mais balaa ngay wax pertinence su dialogue da ngay xool timing bi xool forme bi xool fond bi mais surtout xool objectif bi nga xam ne moom la doyen bi wax ñun. jàpp ñu ni am na benn njariñ actuellement pour ñuy def dialogue xam nga la moo tax parce que décision conseil constitutionnel bi moom mooy la priorité nañu jàpp datu élection yi et à partir de ce moment là ki nga xam ni moom moo nekkoon la source donc de toute cette discorde là loolu dinañ ko mën a étape dinañ ko mën a passé ñu jàll ci beneen ci beneen